salaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala mbokk yi ànd ak ñun ci Islam TV ci seen jotaayu la mosaïque ñoo ambekte di am contentement dellu soit ak yéen comme niñ koy faral di defee waxtu wu nekk tey Islam TV la mosaïque di monde di ambekte di am contentement di dalal ki nga xamante ne moom moo di Moustapha Oustaz Moustapha Sagnane nag nekk koo xam ne ku ñu xam ci terrain bi la nekkul ne euh, tey rek lañ ko mës dalal ci plateau yi mu yëngu nag ci wàllu syndicalisme mais aussi nekk conseil ca ministère de l'éducation yàgg nag ci terrain bi lool tey ñu war a waxtaane li nga xamante ne moom moo di wàllum syndicalisme ni ki noonu yi tamit euh, luxal arabia comme ni ñu koy faral di defee moom parce que syndicaliste la bu nga xamante ne dafa yàgg a li nga xamante ne moom moo di Euh, luxa al arabia ci métier mi mais aussi ci li nga xamante ne moo di éthique beeg déontologie beeg yeneen ak yeneen yëpp dinañ ci ñëw gën cee sori ci point yi euh, ñu war a waxtaanee itam meññeef yi nga xamante ne bàyyikoo na ci xeex boobu nga xamante ne waxtu wu nekk ñoo ngi koy séen ci terrain bi mu koy def euh, fan la ci toll lan mooy prospective yi ak yeneen i question yu nga xamante ne dina làmboo wàll gi ba tax nañu dalal ki nga xamante ne comme ni ma leen ko waxee sànq moom moo di oustaz Moustapha Sagnane oustaz asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Islam mi ngi am mbégte di la dalal ci plateau la. jëf ñun aussi ñi nga am mbégte lu rëy rëy ci daje bi incha allah taala di ñaan lépp nekk yiw. amin oustaz Moustapha buñ la bëggee euh, laaj tey jii par exemple luxal arabiya ci ëttu Sénégal ak bi nga xam ne yaa ngi koy def ci tënk euh, naka nga ñu koy tënkale ci tolluwaayam. jazakallah xeyran Cheikh Abdoul Khadir xam nga loolu arabia bi Sénégal pour wax ci yomb na yombul ndax daf di làkk boo xam ne fi jiitu yeneen làkk yëpp xatal istimar mooy colonisation bi mu ñëwee moom Sénégal arabe la moom la fi fekk dafa fekk ay daara fekk fi ay buur fekk fi ay damel fekk fi ay ay sëriñ te ñooñu ñëpp làkk bi nga xam ne lañ doon bindee seen idaara seen administration làkku arabe la woon. Euh, même même sax bu nekkul làkk arab ci ñenn ñi arafi arab lañ doon jëfandikoo pour di bind ci seen làkk bopp moo xam ne wolof la moo xam pulaar la moo xam beneen la donc kon la boo xam ne yàgg na fi bi colon bi ñëwee aussi xam ne lii làkk la boo xam ne sax na fi bu baax a baax a baax def na ay ay ay ay ay pexe boppam pexe yi la ca njëkk mooy jëm ko fee déjeti euh, beneen pexe bi mooy jéem a woo nit ñi ci làkk boobu mais ngir gere leen ko ba mën a am li mu bëgg ci ñoom tax mu ubbi ay ay école yoo xam ne bi mu ñëw dafa ànd ak église bi école yooyu aussi mu fexe ba dugal ci làkku arabe bi muy làkk euh, fexe aussi ba forme ñi ñuy tuddee yenn doomu buur yi ak même yenn doomu sëriñ yi euh, ci làkku français mais jëfandikoo aussi làkku arabe pour mën pour mën leen a am donc làkk la boo xam ne yàgg na fii terewul nag ñoom aussi bi ñu demee ba génn Sénégal bàyyi ñu comme ni ñu ko tuddee muy istiqlal muy indépendance Euh, téréwul làkk bi aussi amna touti jafé jafé yo xamné euh ne ko parce que place bi mu nekkoon avant colon bi di fi ñëw mu jóge daf ko ñak ndax colon bi dafay bàyyi làkkam muy français école bi mu fi ubbi aussi mu ñu ñu tuddee ko école française kon biñu démé dal ba ay années 1960 1961 ba 62 digënté bobu té lañ commencé wa duggal làkku arabe ci suñu suñu système éducatif mais commencé ko ci enseignement moyen secondaire bi élémentaire bi bokku ci euh, donc lolu benn djégo la boo xam bi colon bi demee foofu la arabe bi tollone mais terewul mag ñi fi nekkoon doon jàngale arab ak doon jàng araab ak ci daara yi ku mel ni sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku mel ne Cheikh Murtada Mbacke ku mel ne Cheikh El Hadj Ibrahima Niass al al Kaolaxi ak ñeneen ñu dul ñooñu liggéey nañu euh, liggéey boo xam ne tax nañu indiwaat làkku arab bi ci euh, terrain bi ci saaxa bi ci école bi ñoom ñu créé seen école li ñuy tudde ay école arabu arabo islamique créé ay daara lu mel ne daara kokki ak yeneen daara ak daara pire bi nga xam ne ñëwoon na fi même avant Siamar euh, ak daara yu bare bari yoo xam ne taxawal nañ ko ci la nguuru Sénégal xamne nak arab bi aussi bu ko intégré wul mën na am jafe-jafe lolo motax tax mu dugal làkku arab bi ci suñu système éducatif commencé ko en 1962. machallah rappel historique bu am solo nga def yaa ngi ñuy rappelé ñi nga xamne jaaroon nañ fi def ci rappel yi nga xamantene yu am solo donc loolu lépp fay wone deug li nga xamantene mom modi information et en même temps jafe-jafe yi nga xamne quand même. làkku arab jànkonte nako am ñu taxaw deuguer ci comme ñi nga tuddu muy seigne Cheikh Mbacke gayne Fatma niki noonu yi tamit daaree kokki bi nga xam ne sarx taarix yi ci wàllum alquran ñu jógee foofu di ñëw comme ni ko waxee ci moyen secondaire bi depuis 1960 1962 ba fi ñu agsi tey gis nañ ne làkku arab bi quand même dem na ci li nga xamantene mom modi ay niveau yu bari ci walu ibtidaiyya i'dadiyya thanawiyya euh nu xex bi démé bam yek fofu waaw xeex bi ni mu demee mooy jàngalekat yi njëkk yooyu nga xam ne dañ leen a ñu dugg ñu nekk ñenn ñu nekk ay professeur ñenn ñu nekk ay ci école élémentaire bi dañoo demoon ba gis ne làkk bi dañ ko dugal rek mais dugal bu ñu gëm loolu lañ gisoon ñoom parce que làkk boo xam ne da nga ko dugal te balaa ki koy jàngale di ñëw ñu bàyyi ko ba ngoon ba 5 xale yi war a wàcc ñu ne ko kaay dugg 5 heures 6 heures nga def arab kooku xam nga mbir la euh, bu dee ci moyen secondaire bi aussi ñu def ko LV2 Euh, maanaam mooy muy lura xayya boo xam ne lura ixtiyaare lay doon ci ndongo yi ci la mag ñi gisee woon ne kon léegi ñoom dañoo war a créer lu ñu tuddee benn wilaadiya benn amicale mag ñi créer benn amicale boo xam ne euh, Cheikh Doudou Gueye ak El Hadj Doudou Gueye bu Thiès moo ko jiite woon ak euh, Cheikh Moustapha Cissé bu Pire ak Moussa ak Moustapha Niang bu Tiwaawoon ñooñu kilifa yooyu ak ñeneen ñu dul ñoom ñoo jiite woon amicale boobu liggéey ci lu baree baree bari mais taxul ñu am lu ñu bëgg moo tax ñu mujj dem dugg ci benn syndicat bu ñu bu ñuy tuddee SNEL ISNEL boo xam ne jamono bobu CNTS moko ko yore woon bañ fa duggé aussi ñu ñu gis ne aussi euh, maanaam làkku arabe bi pour ñu waxtaane ko ñoom def ko sax seen revendication dañ koy yóbbu ci question diverses moy masail muxtalifa loolu nag moo tax mag ñu nak fippu créer li ñuy tuddee mom syndicat. légui ñom lan lañu ragal ci làkku arabe bi dugg ci biir kii bi parce que comme làkku arabe la rek madame ñom dañ ciy daw. Euh, non liñ ciy ragal liñ ci gëna ragal moy làkk arabe def fi jitu jiitu français bi donc amon na fi ay reine donc bu ñu ko joxee benn xiima bi benn gëdd bi ci biir système bi dafay mëdd français bi te bu ko mëddee istimaar li mu bëggoon moom du ko am parce que ñi mu jàngaloon pour ñu jiite réew mi ëllëg français lañ lañ leen jàngal te xam nañ ne bu ñu continuer bàyyi arab yi mu dem dina génn ay cadre yoo xam ne dañuy muur déjà francophone yooyu nga xam ñom lañ ci baye pour ñu jiite réew mi te ñoom li ñu bëggoon moy ñi jiite réew mi nekk ñoo xam dañuy yoré seen xalaat dañuy yoré seen seen vision dañuy yoré seen ahdaf dañuy yoré seen i objectif même bu ñu wuté rek seen wuté day nekk rek ci walu der effectivement loolu mo am donc motax wala dañuy wala motax ñom dañuy ragal arab bi fis arab bi feñ parce que su feñé ben saxaafa la ben wéj ben ben itijah lay am bu bees bo xam da fay wuté itijah bi istimaar bëgg euh li dooleel musamara kon foofu mu mel ne bras de fer bu metti am na donc bras de fer bi ci yan jamono lañ ko gënoon a mën a euh, jox maanaam yan temps la gënoon a dëgër. wala bras de fer bi mi ngi gënoon bëgg dans les années 80 dans les années 70 jëm dans les années 80 ci la ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma euh, El Hadj Ibrahima Niass Seydou Nourou taal euh, Serigne fàllu Mbacke Cheikh Abdoul Aziz Sy al al Amin Moustapha Cissé ak ñeneen ñi nga xam ne xëy na damaa fàtte seen i tur ñooñu ñu de créé benn couple la boo xam ne dañoo xeex xeex bu am solo. ak Cheikh ak ak Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum xeex xeex boo xam ne xeex bu am solo la ba isticmaar bi ba al xokkaam ci jamono yooyu xam ne arab bi mënta ñàkk a dem moo tax ñu bàyyi mu dugg ci suñu système moom éducatif bi mais li mu la ko waxee sànq ñu dugal ko dugal boo xam ne vraiment taxawul lool amul ay ay amul ay cislaay yu leer lolou mo créé nak mag ñi ma la wax sank biñu gënné ci syndicat bobu muy muy SNEL boobu ñu créé ñoom seen syndicat bo xamné dañ ko tuddee SNELAS muy syndicat an-niqaab waxtaan nañu li mu dal si loolu ci sénégal c'est muy SNELAS syndicat national des enseignants en langue arabe syndicat bu nag moo dox ba ñew tay gi suñu loxo ñun ñu yoré ko depuis 2014. Euh, kon syndicalisme syndicalisme bobu nga xamante ne euh, mag ñi daan ko xex yeen mo ngeen jël maintenir ko muy dem yéen kan ngeen commencé jël drapeau bi. waaw parce que ñi ngi commencé jël drapeau bi dëggantaan dans les années 90 ci la nag jeunes yi commencé parce que syndicat bi xeex na ba léegi dootuñu jël jàngalekat yi rek n'importe comment. kon depuis 1990 boobu ba léegi yéen a ngi ci. ñi ngi ci biir jal bi waaw ñi ngi ci biir liggéey bi maanaam ñi ngi ci biir liggéey bi quoi boobu jiite wuñu woon syndicat bi mais ñi ngi woon ci biir liggéey bi comme ay membre du bureau ak ay membre actif yoo xam ne ñi ngi doon yëngatu parce que jamono boobu aussi syndicat bi xeex na ba ñu commencé nag di def concours de recrutement des enseignants en langue arabe ñu ubbi li ñuy tuddee CFPP pour ñu am charia daadiya ubbi CFPS pour ñu am baccalauréat

macha allah en tant que syndicaliste bu fekkente ne da ngay xayma depuis 1990 parce que gis nañ ne guerre bi gënoon a métti wax nga ko bras de fer bi vers les années 80 mais 90 jëm kaw gis nañ ne yu bëri dugg na comme dafa mel ne foofu la guerre bi gën a réussir membre bi nga xam ne fii léegi ci nan ngeen koy xayma pour ñu mën a xam doon xayma foofu li tax sax mu gën a fa réussir mooy foofu la ñu gën a amee tanzim foofu la ñu gën a organisé woo fexe ba fu syndicat bi amutoon base ñu def fa base

indi ko ci benn école muy jàngale su at mi jeexee maire bi nga xam ne fa la école am dépendre mooy xayma bis yi mu jàngale ak heure yi ñu ñu fay ko am na benn doyen bi nga xam ne mooy ñu ngi leen njëkk a fay 18000 euh, francs waaw loolu lañ leen njëkk jox comme comme salaire donc kon xam nga loolu kon metti woon na bu njëkk aussi am amuñu woon droit ci li ñuy tuddee euh, examen professionnel pour nga am shahada mihaniya تي سي ا بي ولا سي ا بي مو الشهاده الاوليه للكفاءه التربويه ولا الشهاده الكامله للكفاءه التربويه بو نك اموتون مي سينيكا بي خيخنا با ليغي جانغلي كات بو نك ام لولو بو نك اوسي كان داو داو لي ترسين مانام دي لين دوغال تي بير فونكسيون بوبليك سينيكا بي خيخ اوسي با نلين دي دوغال تي فونكسيون بوبليك ني افانسي كوم نيب لي افانسي ام نفس الشهاده بوك تي امتحان موم ميهاني بو نك اوسي خالاي داو مين لين ايفاليي تي سين عرب بي ني جانغ مي ديبي 93 تي جامونو اندري سونكو شي غريب تي لين كومونسي di évaluer xale yi ci élémentaire bi ba ci CM1 bi mais ci atum 2012 2012 2013 lañ commencé nak di len évaluer ci shahada ibtidaaiya bi mais mu nekk madda ixtiyaariya ba ren jii ki la ñuy am mu nekk madda ijbaariya pour xale boo xam def nga arabe ci élémentaire moom classique bi ñeenti at. ci tax ci tax yi bi aussi mën nañ ci duggal li ñuy tuddé franco arabe parce que li ma li ma wax légui mi mi concerné won classique yi légui ñu ciow ciow ba état aussi créé li ñuy tuddee ay école franco-arabe publique élémentaire moom ci ci ibtidaaya idaadiya ak ki ak ki saanawiya ñom ñoy yem lepp ñoy yem nu ñuy former seen i kat ñoy yem payoor ñoy yem nu ñuy avancer ñoy yem ni leen di évaluer nga xam ne day am shahada ibtidaaya option franco-arabe am shahada ibtidaaya option euh, française mais même option française boobu dañ koy dañuy évaluer walla ci bir arabe parce que xalé bu def ñent at léegi dañ lay évaluer ci arabe obligatoirement ci xex bi aussi bok dem nañu ba duggal légui taalim diine bi ci man xale étudaaya bi ak aussi ci fran ci école franco arabe yu public yi dem aussi ba ñu xex ba ñu créer aussi li ñu tuddé shahada sanawiya bo xamné ne arabia islamia la muy bac LAR bo xamné depuis 2013 aussi gouvernement au Sénégal comme mom commencé na diko organiser. jiddan loolu am na solo ci ki bi kon mel ne vers les années 90 bi ay réalisation yu bari bari amna ci comme ni ko waxé ba ci 2012 bi maa ngi bëgg ñëw sax ci li nga xamante mom modi shahada ibtidaa yi nga xamante ne euh, commencé nañ koy intégré ci côté boobu ci façon beneen façon boo xam ne moom moo gën a dëgër ak yu mel noonu mais dama bëggoon xam par exemple bu ngeen doon xayma bi euh, nga xam ne ñooy jàngalekati arab yi ci Sénégal euh, ñaata seen lim ñaata la. waaw jàngalekati arab ci ba ñun bi ñu mujj am xayma c'était 16000 la ñu woon maanaam se moom 16000 la ñu woon maanaam waaw bu mujj bi mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci nizam taalimi bi waaw ñooñu 16 moom 16000. waaw connoisseur yooyu mom moom gën na pour ñoom ñooñu nag mënoo cee boole ñu nek ci privé yi parce que mom privé mom ëpp mom ëpp nañu loolu voilà c'est ça donc kon ben sax la bo xamné dafa yaatu trop trop trop li dess rek moy ñu gën leen organiser comme niñ ko organiser ci nizam rasmi bi ñu organiser aussi ci nizam taalim xorr bi aussi ba mbir mi gëna a dem parce que man gëm gëm na ni euh, kafaat yi nga xamné amna ci musaare bu ci ñaari jaani yépp buñ ko boole woon euh, am ben ben itijaax bo xamné ñun ñokay bokk tegal ko ay shurut moom ñu ko ay eh, lawaasim yoo xam ne ci la jëfandikoo am naa yaakaar ne luxal arabiya ak tab islami dina gën a jëm kanam ci Sénégal macha allah léegi kon dañuy gën a delluwaat ci affaire de syndicalisme yi parce que mel na ne moom mooy muharrik bi nga xamante ne mooy yëngal injazat yi nga xam ne moom ngeen di def léegi ila ay mada maanaam nan la ci euh, arabophone yi impliqué woo ci biir li nga xam ne noonu ngeen di liggéeyee waaw mahal asafil marir nag moom arabophone yi al aghlabiya impliqué wuñ ci biir waaw loolu moom malgré effort yi ñuy def yëpp ba léegi dañuy xool nixaaba bi nazra nixaabiya comme ni ñuy xoolee yeneen nixaabaat yi te yàlla xam na ne bokkuñu xatta al sénégalais yi xam na ne bu ñu toogee ci taalisul mufawadaat ñun suñu taalixaat ñun suñu suñu intervention yi nga xam ne dañ koy def dafay wuute trop ak yeneen nixaabaat yi nga xam ne seen saxaafa saxaafa français la day wuute parce que ñun ak nu mën demee aljaane bu diini noo def dina feeñ

Euh, ni ñu war a yéege seen bopp ci ci biir syndicalisme bi ñoom dafay des des moom des na nag syndicat bi continuer ay jéegoom liggéey liggéey boo xam ne dana tax ñooñu mu istiqtaab leen ba mu leen dugal ci nizam bi ba ñu mën a àndandoo ñoom ñëpp liggéey que ñoo bokk benn hadaf léegi foofu problème bi da ngeen gis ne ci tariqa bi ngeen di doxee la wala ñoom ñoo am ay culture yu wuute wala. mën na am ci suñu tariqa la benn mën naa am aussi ci ñoom benn gisin boo xam ne dañ ko gisee euh, musaani bu luxal arabiya parce que lu lu moom moom mu nexaab yu lugal arabiya parce que benn mën na am dañoo jàpp ne kafaat yi am fële amul ci ñun te yàlla xam na ne li nekk fii moo ëpp li nekk foofu loolu moom wallaay parce que ñoom li ñu xam yow da nga koy xam ba pare nga am lu ñu nga am lu ñu lu ñu amul voilà kooku benn beneen bi mooy xëy na syndicat bi bi muy gën a jugaat dëggantaan ci année 2000 yi fekk na ñoom li ci ëpp ci ñoom aussi ay membre lañ ci syndicat yooyu ma la wax dèjà dañ fa nekkoon ay membre ba am fa yenn masulier yi comme bu dee masulier am na fa am fa yenn masuliyaat comme ñoom dañuy jàpp ne du ñu bàyyi seen masuliyaat yi ñu am ci nexaabaat yooyu ñëw ci nexaaba boo xam ne dèjà structuré ci réew na ba am na nizaam boo xam ne mi ngi koy doxee jàpp ne bu ñu ñëwee du ñu fa am place wala yu demee noonu te syndicat bi doxewul noonu syndicat bi kafaa fu mu am dañuy pare pour jox kooku mu liggéey ci kafaat yooyu parce que ñoo bokk benn jëmuwaay bu ñu jëm

li ñu gis ñuy tuddee daara moderne nan la ko syndicalisme gis parce que ñu bëri dañu jàpp ne xëy na lu ñu tëral la pour xeex. ni ñu ko gisee mooy ñun dañoo jàpp ne nizaam bi nizaam chamil la nizaam benn la mu waxat la kullun laa yatajazza maanaam muta moom mutakaamil la maanaam taalim rasmi bi ñuy wax ni taalim xorru bi ak daara yi lépp ñun dañ ko boole ci benn kees moo tax ñun bi ñuy soog a jël al aman al amal li li niqaaba dañu créé li ñuy tuddee benn atelier boo xam ne dañ ci càmbar masaakil taalim arabi def ko ay warshaat benn bi di di di càmbar taalim ibtidaai benn bi càmbar taalim idaadi ak thanawi benn bi taalim euh, taalimul xur ak ak daara yi biñ ci paree ñu am benn muzakkira boo xam ne dañ ko taqdim al xukuma ne ko ñun lii lañ gis ay masaakil lii la ñuy proposé comme ay xulul ñoom aussi ñu jàngat ko rafetlu ko moo tax bi syndicat bi demee ci négociation yi ak gouvernement bi diggante bi li ñuy tuddee election am fi élection de représentativité mooy intixaabaat tamsiliya yi am fii juróom-ñaari syndicat génn ci nga xam ne léegi Sénégal gouvernement bi ñoom lay waxtaanal ci wàllu njàng ñett ci élémentaire ñaar ci moyen secondaire benn ci xismu taatir mooy inspecteurs yi ak benn ci enseignement arabe. benn bu ci nekk tamit aussi am na ñu fay arabe bi. déedéet ak benn ci enseignement arabe maanaam enseignement arabe bi mooy représenté taalim arabe ci ibtidaaiya ci idaadiya ci saanawiya ci ci ci taatir mooy corps inspecteur c'est ça donc ñun al nizam al arabi bi shumuliyatiha bi shumulatihi ñun mom lañu jël légui bi lolu amé ci négociation yi nak ñu signé ak gouvernement ben protocole d'accord ben it ben it benn it benn itifaaqiya depuis salaasin min avril 2018 ittifaqiya bobu nak daf ci am ben nokta al ben mad al mad al khamisa moy nañu dirasa muzakaratu Sénélas FC bi nga xam ne moom moom moo nekk ci biir bu ñu ko munaaxasha diraasa ko li ci jóge ci ay point ñu tasdiq ko utal ko ay tawaarix yoo xam ne mu xaddada li injaaziha voilà ci ci nixaat yooyu euh, affaire daara bi nga wax moo tax ma dil la loolu ci nixaat yooyu daf ci am daara daf ci am daara ñun daara bi mooy ñun dañ ne dañoo gëm ne benn dañoo war a muraajawaat curriculum daara moderne yi parce que méngoowul ak daara dëggantaan parce que moom moom. critères yi ma liir de moom presque pour nga am daara sax day difficile. mën nga toog deux ans di demande doo am. bu ñu ko mën a jaxawee daara li ñuy tuddee daara classique dañuy yëg seen bopp ci daara moderne xam nga daara boo xam ne da nga ne da ngay jàngale alxuraan ñetti at soo paree jàngale français soo paree jàngale arabe soo paree jàng moom moom kooku taxul ñuy wax daara quoi parce que daara bu ñu koy wax alxuraan la soo paree alxuraan nga mokkal bind soo mënta mokkal bind nga jàng xam-xam jàng asmaawi jàng alfiya ah jàng laxdariyu jàng dureedi jàng jàng jàng yooyu moo taxul ñuy wax daara mais dara bo xamni alcorane kessa nga fay français ak arabe franco arabe donc motax ngi ñu nañu nañu curriculum deuxièmement nañu ubbi. fofu nga taxaw Amna ba léegi ñu ci bëri xamuñu ne jàngu euh, alxuraan ak jàngu arab de bokkuñu am na ay différence boo jàngee alxuraan kese dem bi jàng français yow français kese nga jàng ba léegi voilà. boo jàngee daara nga mokkal alxuraan wala mokkalu nga àgg ci benn benn dayo bi soo mokkalee ba pare ba ba bind nga ba nga beqi soo pare dañ lay jàngal ay xam-xam jàngal al axdari jàngal la risaala jàngal la duréet jàngal la moom alfiya cest xam moom ulum yëpp moom dañ la koy jàngal te lépp yaa ci biir daara ci mais ñoom li ñu tuddee tey daara moderne loolu moom yooyu yëpp amu ci li ci am mooy alxuraan soo mokkalee soo mokk dul diire ñoom bi ñu ko bëgg soo paree da ngay jàngi français ak arabe muy franco arabe soo amee sa soo amee sa certificat wala sa BFEM nga gën daal ja dem te daara nag doon moom doon loolu moo tax ñu ne nañ ko muraaja beneen bi mooy nañu ubbi ay classe euh, fatx fusul quraniya fii kulli madaris al ibtidaaiya al classiqiya loolu mooy leen ñu ubbi ay classe coranique parce que gis nañ ne dëkk yi ci dëkk yi la dong yi di jël jóge ak seen sëriñ daara ñëw ci réewu taax yi léegi nañu dem ci village yooyu ak e- village boo dem am na école français ñu ël fa benn classe spéciale ne lii classe quraan yi la parce que quraan yi la sëñ daara ba fa daan jóge ak dongoom ci dëkk ba di ñëw ci réewu taax yi mu toog ci classe boobu su xëyee jàngale su xale ya wàccee dem ñibbi seen i kër léegi au lieu mu yel yelwaanloo xale yi du leen moom du leen yelwaanloo maire dëkk ba wala maire commune ba mooy fay sëriñ daara boobu chahriyan léegi sëñ daara ba day xëy di ñëw jàngale su wàccee dem ñibbi këram ñun en tant que syndicat ñun loolu ñu proposé ci wàllu daara yi ñu ubbi ay classe mu coranique ci école élémentaire yi nga xam ne ay sëriñ daara dañ faa dëkk di mang dem ci réewi taax yi beneen bi mooy ñu muraajaa curriculum mu euh, daara moderne yi ba mu méngoo ak li ñuy tuddee daara dëggantaan dëgg dëgg dëgg daara loolu mooy tax nit ñi ñeme faa yóbbu seen i moom seen i doom ما شاء الله مباكي ني سيتان ني نغي اندك سين تيليفزيون اسلام تي في سي سين جتاي لا موزيك دي موند عبد الخادر فال دالال كيغا خامتاني موم مودي ا استاذ مصطفى سيغان نيك سانديكاليست دي ديفاندر لي بلا جي توالو عرب نيك نون تاميت داري القران بشكل عام ا سين مصطفى دا فا ملني وقت بي مي ني غندي ياب غندي جوت ما شاء الله وخكي بي ابنا سولو تروب دو بوغون ني جال سي كوتي بو فكانتني مانام داخ يي نغي خيخال سي على المستوى المهني مانام سي كوتي métier bi ak ci côté diplomatie quand même maanaam bu fekkente ne daf ngeen ibtidaa yeesaanawi ak kii malo bu ñu waree dem ba def ay licence war a jàll pour dem ENAM ENA ak yu mel noonu ndax côté boobu yéen. yooyu xeex nañ ci mi ngi ci biir li ma doon wax sànq léegi parce que xam nga ENA dafi amoon xismu luxal arabiya mu jóge ñu ñu ñu ñu dindi ko mais syndicat bi ci ay ay xeexam ak ci ay ak ay mbiram dem na ba ñu ubbiwaate leen ENA bi même sax bu dee nañ dañ ko tëjoon jamonoy Abdou Diouf lañ ko arrêté woon donc ñun après bi Abdoulaye Wade ñëwee ak Macky Sall bon wax nañ ci wax a wax ba ñu ubbi waatal leen ko mais bi ñu ko ubbee aussi niñ ko ubbee gën a luñu parce que ñaari faron moo fa am dafa am direct am euh, professionnel bon direct bi mooy ki am licence am wala ki am moom maîtrise am ñëw ñëw def musaabaxa bi kooku ubbil nañ ko musaari bun yëpp am nañ mën nañ ko def. fekkente ne ñu qualification ci wàllu langue française. même bu ñu ko amul am nañ droit def ko parce que seen taxasus luxal arabiya la

ak ay ak jaamia président bi fi nekk tey diggoon voilà dikk nañu ne dina ubbi benn jaamia fii ci booru waaye ci VDN bi foofu dañ ne woon war nañ ko liggéey au plus tard en euh, deux mille euh, deux mille vingt sept voilà war na pare mais ñun fi nekk nii dañu tiit parce que place bi ñu waxoon ne foofu lay doon tey boo fa demee da fekk ñu fay tabax ay armel waaw dañ ko tabax armel yi moom yéeme na léegi nag nee nañu ba léegi ñi ngi ci masron boobu am na fenn fu ñu prévoir ne dañ ko fa def ci même mintaxe boobu ci même zone boobu donc ñu ñi ngi ñi ngi topp loolu mais daal pour wax la li am moo di ne euh, xale yi bu ñu amee seen shahada sanawiya moo xam franco arabe la dañu di yóbbu Cheikh Cheikh Anta Diop bu fekk ak wala ci leen kulliyaat yi nga xam ne li ëpp ci ñoom bu ñu demee jàng dañuy bàyyi parce foofu médium nizaam bi ñuy jàngale loxa bi ñuy istimal pour taalim li ci ëpp moom loxal français la te xale yi li ci ëpp amuñu mustawa loxal français boo xam ne man leen ñu mutaaba seen dirasa boobu donc ku ci demul Cheikh Cheikh Anta Diop rek moom ku lay tudd loxal al arabia foofu li ci ëpp bu ñu defee benn at ñaari at dañuy bàyyi njàng bi donc ñun suñu xeex wala war nañ ko gën a samp foofu pour vraiment ñu ubbi ay kulliyaat même sax ñun li ñu gëm du ay kulliyaat mais ñu ubbi benn jaamia boo xam ne day nekk jaamia li taalimi lugha arabia wa tarbia al islamia wa fununiha macha allah macha allah oustaz Moustapha kontaan nañ trop ci wuy si gi nga ñu wuy si waxtu bi moo ñu xaw a dab mais point yi ngay abordé nii dafa nekk yu am solo yi nga xam il faut ñu defaat ci beneen jotaay incha lan ma sa kàddu gu mujj. kàddu gu mujj rek xëy na mooy bu baax gërëm leen xëy na waxtu yi moo gàtt trop. te duñ bàyyi sax ci wax waxaale ci corona bi. li ñu war a wax ci loxol arabiya bari na trop trop trop xëy na temps bi moo ko tënk noonu donc dañ ko respecté gërëm leen bu baax moom sant leen. corona bi aussi liñ ciy joxe rek ñun comme kàddu mooy euh, bu ñu dellu woon ci taalim islamiya yi nga xam ne moom la ñu suñu yoon sallallahu alayhi wasallam wax ci wàllu nazaafa ci wàllu moom comportement ci wàllu lekk ak lu ñu war a lekk ak lu ñu war a lekk nu ñu war a tëddee nu ñu war a jëflanteeg suñu biir ay ay ay ay digle yu bare bare bare bare bëri yoo xam ne islaam ba mu ko joxee buñ ko respecté woon yaakaar naa mën nañu bañ a agsi fii mais nag maal maal asaf yont bi joxe na ay digle euh, lànk nañ ko tey scientifique yi indi nañu joxe digle yooyu les même digle yi ñu ngi koy appliquer xëy na yàlla dinañu yërëm ci loolu ba teggal ñu ko fi incha allah وما ذلك على الله العزيز جرجف استاذ مصطفى سنان بيغ نان سي سامبليسيتي غي اك اكسيسيبيليتي بي نييب خام نان سي اجندا وقتو نيك دا فاي شارجي ني دي لن سانتو باخ دي لن غن عبد القادر مو ميكروفون بي عيسى غوم نيكون سي والو خرالي غي سون تكنيسيان بو خرين بي ني لن جوخ بنن ديك داجي سي سين تلفزيون اسلام تي في سين جتايو لا موزيك دي مونت السلام عليكم ورحمه الله تعالى